nee na man maa laaj Alliance bale man maa bëgg a bëre ak moom man maa dem ci promoteur bi ne ko tëggal sama combat ak Alliance Baldé moom mi nga xam te ne mooy Sibor nag moo bëggoon bëre ak Alliance Baldé ba tax na sax suma jumul juumul noonu déggoon naa ko bi ma leen dalalee ñoom ñaar mu ne nañu wàññi sama cachet yokkal ki nga xamante ne mooy alliance Balde pour bëgg a bëre ak moom xaw ma nag fan la tegoon loolu ñoom ñaan nag jot nañu jàmmaarloo waaye ki nga xamante ni nii mooy alliance Balde yàlla may na ko ndam ci kaw suba ma bàyyi ko mu nuyoo ñu wéyal waxtaan wi alliance nuyu naa la. waaw fay naa la di wax euh, euh, gannaaw ba ma sant yàlla julli si yeneen bi maa ngi sant suma ñaari waajur di leen ñaanal ñu wér gudd fan am jàmm di wax jërëjëf Serigne Touba. di sant suma la suma xarit ab du Baara Mbacke mu sëriñ Baara yàlla na yàlla guddal fanam te wéral ko ci barke Seydina Mohamed di ñaanal bépp bépp kilifa diine kilifa aada suñu borom yàggal leen fi di ñaanal ñi caabi féetee ginnaaw suñu borom delloo leen tañ bañ faa delluwaat ñi nga xam ñu ngi tëdd si laal hôpital yàlla nañ suñu borom fëgg seen bopp bañ delluwaat seen kër ci barke Seydina Mohamed. gis ngeen mbokk yi jàmmaarloo dama doon dalal fii mbër teg fii mbër ñu waxtaanee ko. waaye lu mënul ñàkk faw ma ndax démb maa ngi nuy ki nga xamante ni mooy Fallou Ndiaye njiital Ndiaye production maa ngi koy nuyu bu baax a baax ndax gis nañ mu taxawal combat bu neex dox ci diggante euh, Bou Siteu ak Laurent mu nekk combat boo xamante ni yàggoon nañ ko bëgg waaye Fallou Ndiaye taxawal nañu ko ndax démb laa doon woo ak ki nga xamante ni mooy Bou bëggoon confirmer ak moom ndax jotoon naa waxtaan ak moom bëggoon ko dalal moom ak. Euh, Alliance Baldé ñoom ñaar ñu jaamaarloo waaye combat mujj na taxaw démb looloo waral ñëwul tey ba tax na nag ma woo Alliance Baldé rek ñu bëgg koo waxtaanee mais Alliance dama gis sa combat ak ak ak euh, Sibor coow li bari woon sa diggante yow ak lan la woon mu dëkk la ba noppi bëgg komba bi coow li bari sa diggante ak moom lan la. waaw Alliance moom yàlla moo def loolu ci moom maa ëpp ay adversaire ci làmb ji mais nag man ak Sibor bari woon na coow. parce que dafa am ñu ko ngemboon bëgg mu bëre ak man. Mhm. mu jàpp ne war na mën a ñëw rek jaar si kaw alliance Diallo. moo taxoon kon du moom moo bëggoon làmb dafa am nekkoon ci ginnaaw làmb ji. déedéet du woon moom moo bëgg làmb ji dafa am ñu nekkoon ci ginnaaw ñu bëggoon làmb ji. parce que dañoo yaakaaroon ne fii mooy gën a nooy moo taxoon ñu ñëw fi pour pour mu xool nan lañ daanee alliance pour mun a jàll. ñi ko ngemb ay mbër lañu wala boog dafa ñoo xam te dañ yaa leen yaa leen neexul boog ñu bëgg. nga ay mbër lañ parce que ñoom ma daanu day nekk seen arrangement xam nañ ne bientôt damay dal seen kaw léegi nag pour Sibor daan ma bu boobaa dama leen di ñàkk moo taxoon ñu bëgg làmb ji pour ma bëre ak siboor mais mais mais bu ñu bëggee Sibor daan la est que ñoom mënuñu woon ñëw jëflante ak yow. moo gën ñu yóbbante non ñimewuñ ma. barki Serigne Bamba ñimewuñ ma te duñ ma mus a ñime. ñemewuñ la moo tax ñu yóbbante mbër. am na beneen mbër bu ñu indiwaat démb ñu ngi may woo di ma wax ay boo yu bari yoo xam ne. bu buñ ma fayoon cent millions du ma bëre ak ñoom du ma tudd seen tour sax di leen may promo mais cent millions buñ ma ko fayoon barki Serigne Bamba du ma bëre ak ñoom. balaa lool loolu sax loolu loolu sax dañ koy denc ñu ñëw ci tuuti ñu ñëw ci diggante yow ak Sibor ba noppi doog a ñëw ci loolu ñëw ci say adversaires yi nga xamante ni ñoo nekk ci sa kanam sa diggante ak Sibor combat bi dañoo gis ne bi nga dugg see ci stade bi. Euh, bi troisième combat dawee xawma ma komba combat fekk na yow pare nga ci làmb ji simmeeku nga ba naan ko kaay xool ma ñëw ba ci moom lan la woon. waaw parce que dama koo bëgg a xamal ne bu fekkee doole ëpp moo ko ci combat bi bu fekkee bëre maa ko dàq téeméeri junni yoon bu doon lim yaakaar ngemb am naa ko bu yàgg ba may daanu. am nga ko. barki Serigne ba am naa ko bu yàgg ba may daanu. mais mais mais mais lan moo taxoon lan moo taxoon mu ne ku ëpp entraînement ku ëpp lu mu daj ci làmb ji yàlla na ko yàlla may ndam dafa jàppoon ne euh, Alliance Baldé du entraîné Alliance Baldé amul ngemb Alliance Baldé daal nekkul ci dara. ba pare taxi. ku ëpp ñaani waajur yàlla na am ndam fii la ko waxee ma wax mu ne ma maa la ëpp ñaani waajur. waaw loolu fii la amee moom ci. waaw léegi nag suñu borom mooy atteel parce que nit dina wax wax boo xam ne après bientôt lay xam li mu wax rafetul parce que bu fekkee ay doomu aadama ngeen ngeen waroo xool nit ba mu nekkoon nga ne ko maa lëpp ñaanu waajur parce que xamul lan laay daj suma gaale xamul lan laa ne ak suma waajur xamul ba xam sumay waajur ñu ngi dund wala dund ñu xamu ci dara. Mm-hmm. kon mënul toog mu ne ma maa lëpp ñaanu waajur lu ma doon bëre waale dafa bari. parce que mënuñu nekk ay mbër ba pare ñu waxante wax yoo xam ne dafay xaw a doy waar. Mm-hmm. saa bu ñu wax rek dañoo war a xool lu ñuy wax pour bientôt ñu koy seetaan mbër dina wax ay nit toog fële di ko yàqal pour mu daanu. dëgg la. Mm-hmm. mais mais ngeen ngeen ngeen ñëw ci biir géew bi. Mhm. ngeen ñëw ci biir géew bi làmb yu neex bay woon na. Mhm. mais seen combat ni ngeen ni ngeen doon jëflan ni ngeen doon xas-xasloo yee ñaar. Mhm. bi ngeen ñëwee xeexu leen di ngeen ñëw rek daw jàppante. waaw parce que su ba fa nekkoon di xeex moom day day day dugg si suuf xool nan la ma jàppee parce que boobu xam naa liñ ko conseillé xam naa lan la war a bëri si xam naa ko presque dix jours avant làmb ji xam naa ne dafay song si. moo tax ma taxawoon di ko xaar boo xoolee avant làmb ji billaay boo xoolee bi ñu arbitre soufflé dama jiital pied droite pour mu handicapé mais bi ñu taxee ma xam ne day day day song si dama jiital pied gauche deux pieds laa bëre ak moom ci laa ci ma changé pied rek mu daaw ñëw bi ñëwee dóorul def dara dafa kor boo xoolee sax man maa ko dóor ñetti ci suuf maa ko dóor benn ñaar jot ngaa suruxal foofu naa ko ñetti ku Ah, ban nga bëggoon moment boobu parce que dama gis ne. Mhm. dafa dugg jàpp. Mhm. rek di ëñ. di ëñ di ñëw que dañ ne ko yàq bu doole. Ah. dañ ne ko yàq bu doole léegi nag bu mu duggee benn mu dëgër mu duggaat ñaar mu dëgër mu duggaat ñett mu dëgër dana nooy nooy yu métti. moment bi ngeen jàppantee noonu. billaahi nooy bu métti la doon nooy. ci laa xam ne nag tool yi moo fi nekk rek ak wax ji mais mënul bëre amul doole musculation nag mën na volume loo mbër mu toll nu ko neex mais billaahi amul doole. nga nga nga jàpp ko woof ko ca xabal nga ko def de. cabaxalu biti ca gannaaw biti ca gannaaw mais mm. loolu est-ce que wóor na bu la mbotoon. non mënu ma mbot moom amul ñetti kale yu ublaam mënul daan kenn. nekkul nag li ma ko daan kii kon Sibor mënul bëri. parce que Serigne Bamba Sibor daanul kenn xool ay làmbam kum daan mus nga gis Sibor bu am jël. victoire maa lay laaj victoire par par par par décision arbitre la am beneen combat boo xam ne dañ ko def sans verdict ñaari combat yooyu la bëree ñu bëgg jël te ko ci kaw mbër bu am douze combat wala treize combat mu ne mu ne signature ba ñëpp taxaw mu ne damaa jënd tikke damaa signé un million ak promoteur bi ñëpp ñu ngi taxaw signature ba mu ne dama signé un million ak promoteur bi xamoon naa ko avant xam naa ne dafa jënd ay bloc pour mën a bëreeg man mbooloo mi ñu doon wax indiwul ci stade bi dara. boo xoolee mbooloo mi ñëwul déedéet boo xoolee li ma indi si stade bi indiw ko. kon jënd naa dix bolok jënd naa treize bolok ay wax la woon rek yoo xam ne pour mun a daan alliance yeneen promoteurs yi ne booy bi day jënd ticket pour mu mun a bëriwaat. mais nga daan ko ñu xëy ci lënd bi lënd bi xaw ma mart bi ñu dégg ne dafa blessé. waaw bu ko neexee mun na blessé mais en tout cas bi mu ñëw làmb ja dara jot ko. bàkku na sumeeku na boo xoolee. man ñetti yoon laa dox ci làmb ji wala ñeenti yoon bu ma simee ko laa dem ci moom ne ko pare naa ñëwaat ci moom ne ko gaawal ñu bëre ci sama cumukaay laa toog ba arrosé bu ñu duggee ci géew ba maa ko njëkk pare pare naa ba taxaw moom pareegul. est-ce que jékku woo ko tamit ci musique. musuma kaa jékku bu fekkee musique boo xoolee yaram moom xam ne lim indi si musique lépp bu jékku doon am moom mooy jékku. nga jóge fa daan ki nga mooy suba avant ngay bëreeg suba sax euh, xawoon nga kii da nga doon daanu affaire demee noonu mais nga jóge ci suba am ci ndam fan la la mën a yóbbu. man ma jóge ci suba ak ndam man ma ëpp ay adversaire ci làmb ji mais nag kenn rek laa bëgg xam ne suñu combat man ak moom dina neex muy booy Niang bu école de lutte loolu ñeme ko. parce que dafa indi saa Thiès ne ma boo ko daanee ma may la sens ma daan ko. Boy Niang Boy bu école de lutte Balla Gaye bu fekkee gor la mu ngi may dégg moo indi Sa Thiès ma boo ko daanee ma may la chance ma daan ko ñu defaat deux mois mu indi dund. Maguette Seck barki Serigne Saliou moom mu may dégg gor la nga ne ma ñu dajee yow dund ngeen dox nga ne barki Serigne Saliou boo daanee dund billaay ma bëreeg yow yaa ma ko wax si télé laa toog ma daan dund ab promoteur wala nga ruux naan ko non booy bi defagul dara maa la mën maa la gën a neex xale maa la dàq bëri maa la gën a soxor. maa Maguette Seck Boy Niang géejawaay mbër boobu rek laa fu desee moom laa bëgg a bëreel amul beneen mbër bu ma fa soxla géejawaay. ah mais dégg naa nga doon wax yéen mbër wala ñooñu da nga leen mujjee am classe. à part Mathia keneen géejawaay. jeex na di nuyu Lac de Guiers suma grand sama sama xarit la de Guiers 2. jantal grand maa ngi koy siyaare bëree bëri. victoire daal daal nekk dafa neex am victoire ci kaw suba nga jékki-jékki ñëwaat tamit encore ni nga ne nga ne nga ne Maguette soxla mais Maguette Seck dis na Maguette Seck gis nga keroog li mu bëri estat. Maguette Seck màgget na fin carrière la nekk lu mu koy ñaanal mu ut visa dem tukki bu bëreeg alliance ba pare. man moom mun bu ñu bëree ba pare mën naa laa teg si yoon jàppale la boole laa gars ñu jàppale la nga tukki mais faa ñu bëree ba pare. da ngeen di bëree ba noppi nga boole ko gars mu tukki. tukki loolu moo gën mais Maguette Seck mu ngi fin boo xoolee ñum saxaarandool ñëpp tàq nañ bàyyi ko moom mu ngi saxaar ba léegi mënul tàq. <laughs> man Adama est dama woo Maguette Seck sax. ayca na neex. <laughs> billaay ñum saxaarandool ñëpp tàq nañ barki Serigne Bamba. budul budul budul budul budul Boy Niang Maguette Seck kan moo nekk sa xel. budul Boy Niang budul Maguette Seck mbër bu ma war a bëree rek ma bëreeg yow. mais gis nañ fan yii ñaari avance dafa xew ñetti avance dafa xew. man daal su ma amul. su ma amul kii na am Abu Ndiassé ndax maa ko ay victoire. Abu Ndiassé billaahi maa ko ay. victoire non yow ak moom làmb la mais damaa xam ne Abu Ndiassé mer gi mer fan yii. barke Serigne Saliou compté leen ay victoire am compté samay victoire ngeen compté ay combat am compté samay combat maa ko dàq xeex maa ko gën a ñëwee. Abu Ndiassé laa la wax de billaay maa gën a ñime c'est que gars yi dañuy jaawale topp si ginnaaw mbër balbalu fii xam nga am na ay ay taa yoo xam dañ koy judduwaale. Abu Ndiassé daa judduwaale ay tànkam pour ma wax leen ko état boobu muy ni si làmb ji daf ko judduwaale de naturel la barki maam Seera Fall am na mbëri bëri yoo xam ne seen état naturel la liggéeyuñ ko. ku am doole ko Pape Ndoye def ba ki démb ku am doole daanoo noonu ku am doole dëgg barki sëñ Bamba du daanoo noonu. léegi da nga bëgg wax ne Abu Ndiassé andiwul dara ci làmb ji déedéet indiwul dara dara indiw ko. man daal li tax alliance Baldé buggul lu yomb wala lu nooy li booy def comme li booy naa alliance Baldé dafay daanu naa ko jël def ko escalier man li tax bugguloo loolu daal xaw na ma jaaxal. non man bu ma sañee damay am combat jànk bu metti boo xam ne dañ naan tay mu rey ko Abou Ndiassé man moom bu ñu taxawee si géew dañuy wax tay ma rey ma loolu la ñuy wax man loolu laa bëgg damaa bëgg lu metti kon fi mu toll bu ñu la andoon avance avance nga jël ko yóbbu. sëñ yi mooy sama papa borom yàlla rek ay buur amul leneen lu may tii sama àdduna. mais su ma àndoon avance Bou Siteu xam nga làmb lañu wax. Mhm. man nekkuma fi di am xaar ma yàlla ak kenn ku ma war a bëreel damay bëri yow du ma mbër yooyu toog seen ruxu de daanu onze combat di tàmm fu ñuy bëreel noonu man ku ma làmb booleel damay bëri nañ ma jox ak xam rek jeex na amul leneen. ñu toll nii ku la am na ans bu Siteu fay lu ko jël nga jël ko. billaay wallaay ñëpp laa fi nekkal nekkuma fi pour kenn dama fi nekk pour ñëpp ku ma yàlla booleel ma bëgg yow. mais ñu gis ne ñu gis ne làmb ji nag xawoon na xawoon na xawoon na la enrangé ndam lii. xawoon na la enrangé parce que gis nañu ci ci ci ci ci ci combat yi nga jot a jógee euh, la nga ci jot a jëlee nga ñëw jóge ci lii am ci ndam bi nga ci jógee léegi naka ngay naka ngay marché ak naka la la def. damaa bëri dimanche lundi ma dem entraînement. parce que bu fekkee da bëgg dara da ngay bàyyi dara def dara. mënoo mhm. bëgg dara nekk ci dara te gëmoo ko wala danga nga koy fowee mieux que nga bàyyi ko dama nekkoon si làmb mu metti ma wét ci xam nga ma xam ne tamit lu mu yàgg yàgg suñu borom mun na indi mu neex parce que boo xoolee suma ma départ ay victoire laa départ su ma ñëwee ba si làmb mu metti dama am gëm-gëm tey su ma daan woon leen dimanche lundi damay fëggaat samay daal entere na xam ne man maa ko opté maa ko bëgg. lamb defaluma dara man maa ko defal dara parce que man maay jël su may moyen di ko si def ñu may jox alal moo siy def kon lamb defaluma dara man maa am option bi rek bëgg ko. bu ma daan woon tamit contre Sibor damay fëggaat samay daal xam ne bientôt mun naa daan suñu borom defal ma ko loo xam ne war na ma mun a may ndam ma ko loo xam ne tamit war na ma mën a xañ ndam kon dama xam ne su ma ñekkee yàlla la su ma amee yàlla loolu laa gëm ba pare ma nekk si équipe bu bees mu nekk suma première sortie ma ànd ak ay xale dam am ndam dama ci sant yàlla bu baax. parce que loolu nekk léegi. maa ngi écrit euh, Waxinaan. Waxinaan waaw. Waxinaan fu nekk géej laa ne. moo tax ma ñëwoon ak pression boo xam ne day kéemaane parce que nga jóge ci écrit bees sa sorti ci première écrit bu bees dafay metti trop moo tax combat bi daal. mun na am li ma si def ci ci ci entraînement def ko ci ci ci combat bi musuma ko def ci làmb musuma ko def si làmb entraînement trois fois par jours xam nga lu bëri ma ko doon ma ko doon jànkoonteel di ko dégg mais dama xam ne bu waree neex rek day neex bu waree métti tam day métti su ma daan woon tam damay gëm ne damaa war a daan rek daan naa man loolu laa gëm daal. Euh, nan ngay wax ñi nga xamante ñoo lay seetaan. waaw di wax ne nañu nañu bàyyi moytonte bi parce que mënoo nekk ci làmb defoo dara di taamu ñooy bëreel. Mm-hmm. ñun ñëpp ñun ñëpp war nañoo mën a bëri suñu biir parce que bu fekkee ay xale lañ ne bëre lañ bëgg war nañ mën a bëre mais bëgg a ñoo di esaar wala ngay ñoo loo xam ne amul fii amul loolu fii benn mbër nekk fi esaar ku nekk da ngay takk ngemb li nga fay defar licence moom laa fay defar licence kon war nañ mën a bëri suñu biir. xam nga di nuyu suma xarit Lac de Guiers 2 <laughs> suñ borom defal ko tawféex di ñaanal suma. papa toog Lac de la. non Lac de Guiers dafa nekk grand bu baax dafa ma bëreeg Mathia mu ñëw ci géew bi jàpp ci musique gi Mathia am lu mu def am lu ma def ma jëlee ci feebar après mu am lu taxawee daal mu nekk nit ku baax ñu dajee mu waxtaan ak man xam jox ma ay conseil may ma juróomi dërëm mais nit ku baax la. Alioune Seye ñoo bokk salle bu ñuy entraîner musculation moom tamit comme noonu su ma gisee dafa may jàppee comme raxam conseiller waxtaan ak man ñooy bokk benn salle yenn saa yi ma ñëw mu tooñ ma affaire yooyu noonu xamal nga la àdduna amul solo làmb dafay jeex benn fan la tey euh, damay wax sax si Papa Boy Djiné ñu ne dafa réew wala dara non bu ñu waree bëree dafa war a metti mhm. moom jabaram suma xarit la yàgg na du tey moom suma xarit la yàgg na du tey yàgg nañ demlante yàgg nañ dikkalante mais bokkuñu ikiri bu ñu waree bëre dañuy bëre bu ñu warul bëre du ñu bëre for forcé wu ma kenn fuxatiwu ma kenn lu ma yéene sama bopp laa ko yéene. tey man munuma nekk si làmb papa nekk si làmb ma koy yéene lu ñaaw. tey su ma fekkoon muy rayante feneen dama siy dugg rayante bu jeexee jeex na loolu laa gëm. mbër man lu ma la wax mooy su ñu waree bëre dañuy bëre bu ñu warul bëre du ñu bëre ba may bëgg a bëre yow du léegi mais ni ñu toll bu la neexee jël sa yoon ma jël sama yoon mais amul lenn loo xam ne yéene naa la ko lu bon. amul loo xam ne tamit maa ngi koy wax loo xam ne damay séentu lu bon ci yow bu ñu waree bëree suñu combat man yow dañuy reyante bu jeexee jeex na mais kon làmb bu bu bu nekkee ci làmb nañ nañ koy rafetal nañu wax lu baax nañu yéenante jàmm xam ne làmb day jeex benn benn trente minutes la wala benn une heure temps bu jeexee jeex na. di sant yàlla bu baax di wax ne sëriñ Xaadim borom yàlla rek ay buur jabaram soxna Ayda maa ngi koy ñaanal bu baax këram laa xamee ay nit yu baax ñu si mel ne Xadija du Touré waaw benn agent boo xam ne xam nga muy jàppale xare yi di leen yóbbu ñuy tukki muy Ibu Ibu Ibulaay Ibulaay mu jàpp si làmb ji bu baax moom tamit xam nga di ko ñaanal suñu borom defal ko tawféex Serigne Xaadim suñu borom defal ko tawféex ak waa kër ga yëpp ñoom Mohamed gaale bi yëpp gaale Serigne Xaadim yëpp damay ñëw fekk rang bi gudd ñu tëb ñëpp dugal ma jàpp si affaire yi. taw 100 laaju ma ko lay ñaanal suñu borom defal la tawféex yàggal la fi wéral la sama papa sama xarit di ñaanal suma papa kamara borom borom borom bajaana yàlla na suñ borom defal tawféex ak képp koo xam ne yaa ngi ci doon jàpp maa lay ñaanal suñ borom guddal sa fan wéeral sa cër ñaanal suma yaay mu yàgg fi lool mère Kaja Sanu maa ngi koy ñaanal doomam Xadi Fay doomam Nabu Babacar Sanu ñu koy wax tigre bu Pikine lu ko woon ci làmb rek man dinaa ko neexal suma mag la suma xarit la yàlla na ko suñ borom defal tawfe ak fépp fu mu nekk ci àdduna di ñaanal ñu nekk ci jeel bi muy maam jogomaay di ñaanal Boucar Sow tuuti suñ borom delloo si leen bañ bañ fa delluwaat wax maam jogay si làmb la bokk xam mais nag tolof tolof mu ñaax si doomu aadama ñun jaar nañ fa bu dee benn fan sax def nañ ko fa waaw di ñaanal suma papa Bekaay Modou mbay Pam muur dama am problème benn sëriñ ñu jàpp si ñu defee rema ñu jàpp si sonn si lool ba yàlla def ñu bàyyi ma kon maa ngi leen di ñaanal Pape Modou bàyyi yitteem yëpp ñëw police Pikine per Bekaay Modou Mbaye maa leen ñaanal bu baax suñu borom def leen tawféex defal leen jàmm di wax ne ku dul yàlla neen la benn sëriñ bu def vidéo ne xale bu réew day daanu cinq minutes lay daanu mag mu mag sëriñ bu dul wax dëgg laay lu mu wax ay ay defet lay doon parce que combat na cinq minutes daan naa ko yooyu amul solo. am sëriñ bu génnoon ne xale bu réew. def def vidéo ne cinq minutes la xale bu xale bu réew du am ndam balaa muy am cinq minutes ñu daan ko. ah kooku loo ko def. waaw mais xam naa gis-gisam la rek gis-gisam la rek man ni lu ma la wax rek su ma su ma su bopp laa gëm loo munti def si àdduna te suñ borom nanguwul du jàpp soo xamee dara doo jël ay sëriñ te sa kër ñu lay liggéeyal da ngay jëm sa xam-xamu bopp lu may wax mooy ku dul yàlla neen la man yàlla laa gëm moom laa yaakaar moom laa doyloo ak sëriñ Touba ku bëgg sëriñ Touba du ragal kon lépp loo munti wax rek dangay xool ci sa bopp wala say doom. parce que nga am ay doomi góor yu ndaw màggaguñ nga am ay tuut tànk màgguñ lépp lay wax doomu jàmb rek xalaatal say doom ëllëg dañoo war a màgg waaw nañu yéenante jàmm di xam ne àdduna amul solo nga ñaan ma ma daanu te suñ borom nangu ko tamit duma daanu cinq minutes dix minutes maa daan si maa daan si si sept minutes combat bu neex bu gaaw léegi yow laa tuddee victoire bi may naa la ko si xol bu sedd guy xam nga sa boobu xam naa la xam nga ma may naa la victoire gis ngeen xam naa la xam nga ma yow may victoire bi ni lay demee ci jàmmaarloo ah, ci wasaare làmb di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen bër ci jàmmaarloo jaa ngeen jëf.